nga xam ne ne président moo euh, moo ko créer lu am solo la parce que bu njëkk ba conseil régional moo amoon moom mu ñëw indi conseil département loolu nag euh, dafa gën a jege population bi kon loolu ñu ngi koy si remercier si création acte trois bi parce que dafa gën a jege euh, askan bi loolu nag jafe-jafe yu ñu si am maanaam financement yi dafa doyul parce que problème yi ci santé ci éducation problème yi jafé jafe dafa bëri té fonds yi ñi indil dafa dafa touti donc ñi ngi ñaan nag état bi di proposer état bi vraiment fonds yi même fekkente euh day def euh, chaque commune 1 milliard mu financer ko bobu dina tax ñi gëna régler jafe jafé askan bi euh, euh moom acte 3 bi mom lu baax la mais ñi ngi ñaan état bi mu yokk fonds yi ndaxte fonds yi moom dafa tuuti e, te soxla yu bëri maam bu jëloon nag yokkal ñi fonds yi e, vraiment loolu dina dinañu dinañu dimbale en plus encore e, avec ak commune yi tamit ñu xool naka la ñuy jàppale boo ñun ak commune yi ñi ñi mun a ànd liggéey nekk benn parce que conseil département bu ñu waxee amul territoire am na territoire parce que territoire bi mooy département bi kon euh, ñi ngi ñaan parce que lépp lu ñuy luy conseil bi def ci commune la koy def même salle de classe yi ñuy construire ci ay commune lañ ko kii kon ñi ngi ñaan état bi vraiment mu yokk fonds yi même fekkee sa commune da koy def 1 milliard boole commune bi ak conseil département ñi nekk benn ñi ànd ñi liggéey ak seen foom booba dina deneen gën a régler jafe-jafe département bi